صلاة الله ثم السلام فبرهام جد عاشق فيك واميق kon ñu ngi ñaan yàlla yal nañu yàlla xamal taxawaay bu nekk ñu xam lu muy fekk ci yàlla ñu jëriñoo taxawaay bii tey euh, Baye Mbaye joxe na ci ay leçon yoo xam ne maa ngi nuyu sa zekaat maa ngi nuyu sa ñaw maa ngi nuyu sa ñaw maa ngi nuyu itam ne ku mën a ñaw nga maa ngi nuyu itam ne eh, am nga itte ci sa dono am nga ci itte bëgg nga ko tabax bëgg nga ko yëkkati bëgg nga lu lu lu rek nga ñaw ko donc maa ngi lay ci eh, Njaay ak Muna waaye maa ngi lay itam ci sang Njaay ak itam yu eh, ak Jeng yooyu yëpp maa ngi ci ciy nuyu nuyoo boo xam ne yéen itam maa leen di nuyu ci nangu bi ngeen nangu ne dafa am lu ngeen war a def loo xam ne ñàkk a déggoo duñu ko may déggoo rek ak dimbalal si kaw yoon moo ñu koy may donc ñu yàlla gërëm ak mbooloo mu tedd nii صلاة الله ثم السلام فبركاته